juge huitième cabinet bii di Mamadou Seck moom mi nga xamante ni nag moo yoroon dossier bi doxoon ci diggante kii di Ousmane Sonko ak Adji saar moom nag ginnaaw bi mu xamlewee ni que ni daal am na ay menaces de mort ak yeneen ak yeneen yoo xamante ni daal mi ngi doon dox utali si ndoggam moom nag moom moomu di Mamadou Seck ginnaaw menace de mort yooyu ak yeneen ak yeneen tax na sax mu ne daal bu sañoon dañ koy bàyyi rek mu daal di génn ci la dossier ginnaaw ba mu génnee ci boobu boobule dossier nag am na beneen dossier boo xamante ni tey daal dinañ koy tegaat ci loxoom. te mooy dossier bi nga xamante ni moo ñeel ñeent ci ñi nga xamante ni ñoo yoroon ay garab yoo xamante ni baaxul du ay di ay garab yoo xamante ni kenn joxewul ndigal ngir ñu war ko mën a jaay fii ci Sénégal muy ñaari chinois ak ñaari pharmacien sénégalais ñoom nag ñoom ñi nga xamante ni nii jàppoon nañ leen ak garab yi fële nga xamante ni mooy ci diwaanu Padoa tey jii sax lañ leen yóbbu woon fële nga xamante ni mooy ci tribunal ngir ñu jàkkaarloo ak jëwrin ji nga xamante ni moo nekk ci wàllu yoon ngir mu mën leen a déglu bu baax a baax a baax ci fàttali nag talaata fukki fan ak ñett jàpp guddi àllarba fukki fan ak ñeent ci weeru avril ci la polis demoon fële nga xamante ni mooy ci diwaanu Padoa daal dafay gis garab yooyu garab yi sax bu ñu ko xaymawee dina nekk ci ay milliards yu takkoo takkoo takku te garab yooyu yëpp du dara lu baax yëkk ci composé yëpp amul lenn loo xamante ni lu baax la rax ci dolli kenn joxewu ci ndigal bi mukk benn yoon ngir ñu war ko war a mën a jaay fii ci diwaanu Sénégal te sax loolu jotoon na am ñooñu nga xamante ni nag ñoo def lu ni mel jamono ji ñi ngi ci loxo takk der yi